alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala ashrafi al anbiya sayidi al awalina wal axirin nabiyina muhammad wa ala alihi wa saxbihi wa sallam tasliman kathira haa nahnu jaalisuuna fi qanaati daarul birri tv wal irshaad وهذه هذه الجلسة مع شيخنا إن دل على شيء فإنما يدل على أن جما غفيرا في جميع أنحاء العالم في كل مناسبات الدينية يطلبون من شيخنا أن يبدي آراءه وأن يسمعوا منه li annahum yaarifuuna annahu laa yatakallam illa wa yadaamu kalaamahu alkitaab wa sunna wa ala manhaji salafina saalih lidalika raayna an nuqaddima lilcheikh baada tasaa'ulaat liyujibahu xata taumma alfaa'ida wa baraka allahu liljami wa in qulna cheikh fa antum taarifuuna أننا نعني به شيخنا وحبيبنا الأستاذ عمر أحمد Sall في دار Thioub ñoo ngi sant borom bi borom bi nga xam ne moo yellool cant di julli ci sang bi di Muhammad alayhi salaatu wa salaam di ko bàkk moom yenent yàlla Muhammad bi nga xam ne moom moo jara bàkk ah, comme niñ ko baaxee di def rek ne àdduna wërngal këpp bépp munaasaba boo xam ne munaasaba diini ya la moo xam fii la moo xam feneen la ci àdduna nit ñi dañuy bëgg Cheikh Omar Ahmad sàll gaaral ci ay kàddu parce que dañ ko xamee ne moom mbindeefu yàlla la boo xam ne boroom xam-xam la boo xam ne fi muy jëlee xam-xamam mooy alkitaabu wa sunna te foofu moo gën a leer moo tax nag àdduna bi yépp dañuy bëgg lépp loo xam ne ñëw na ci mbirum diine rek pour mu gaaral fa ay kàddu te fan yi ñu ngi nii ci weeru tabaski tey la taxaw ñu am nag ay laajte yoo xam ne moom lañ ko bëgg a laaj ci suñ TV bi di TV of Daarul Birri wal Irshad fi Dakar Cheikh dañ lay bàyyi ngay nuyu mbokk yi ba pare ñu ñëw andi suñu asilaat yi alhamdulilahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama nabiyina wa xabibina muhammadin wa alihi wa saxbihi ajmain eh, mbokki jullit yi mbokki àdduna bi mbokki diaspora irshad ak Daaru Birr TV ñoo ngi nuyu mbokk yépp di leen ziyaara di leen tatagal di ñaan yàlla subhaanahu wa taala mu defal ñu nasru defal ñu yusru waaye defal ñu ndimbal gu sax dàq di leen wax ni assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatuhu cheikhana al faadil dañ am ay bataaxal yoo xam ne dañ bëgg cheikh bi tontul ñu ko pour ñun ñëpp ñu jëlee ci xam-xam cheikh fan yi ñu ngi nii di dem ci mbirum tabaski te jullit bi mën na cee jaamu yàlla moo tax dama am ay question yoo xam ne moom laa bëgg gaaral fii pour nga tontul ñu ko question bu njëkk bi ma cheikh hmm. mooy halil udhiyatu fardun am sunnatun mooy ndax tabaski xarum tabaski rey ko farata la ndax sunna la alhamdulilahi rabbil alamin ñu ngi sant borom bi subhaanahu wa taala di ko bàkk di ko gërëm di julli ci ar rasulu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam euh, cheikh alhaaji laaj bi nga laaj muy ndax tëbaski farata la walla sunna la loolu laaj la boo xam ni xëy na danga koo laajaaleel ñu bari ndax xam nga tabaski nit ñi dañ koy jëlee jëlin bu jéggi dayo ñit ñenn ñi di ko jëlee jël bu yem waaye nag li olof di wax moo ci nekk muy neex te dagan borom kër bu nekk bëgg na ko yal na ko yàlla yombalal ñépp waaye boroom xam-xam yi dañoo dëppoo ci ni tëbaski dañoo jàpp ni sunna la waaye sunna mu akkada la muy sunna bu ñu feddali sunna bu ñu feddali nag dafa am taxawaay li tax mu am taxawaay mooy dafay xaw a jege farata ndax dooleem dafay ëpp doole bu ñu nee sunna sunna rekk la kon tabaski du farata mhm. du farata waaye nag sunna la nekk sunna bu ñu feddali ndax yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam def na ko mhm. te digle na ko insha allah mhm. barakallahu fikum barakallahu laka yaa cheikhana al si leeral bi nga xam ne moom nga leeral sama laaj bu njëkk bi leer na ñu leer na léegi ne al udhiyatu sunnatun mu akkada la hmm. foog naa képp koo xam ne yaa ngi topp dégg nga leeral bi nga xam ne moom la sama cheikh bi leeral cheikh ñu dem si laaj bu e, ñaareel bi mooy mal xikmatu min al udhiya ana ban xam-xam mbaa ban secret moo nekk ci mbirum tabaski lu tax tabaski ñëw ban secret moo tax yàlla àndil ñu ko cheikh alaaji al min al udxiya mm-hmm. uh, awalu cheyin dañuy wax ni mm-hmm. huwa taqarrub ila allahi taala mooy mm-hmm. jëf ko ngir jege ko borom bi taala waaye ñaareel bi mu nekk ihyaan li sunnati abina ibrahima aleyhi salaam muy dundal sunnay sunu maam ibrahim mi nga xam ni borom bi waxoon na yonent bi ne ko anit tabi millata abika ibrahim toppal yoonu sa baay ibrahim kon xeerañteef bi nekk ci gi mooy jege ko yàlla benn ñaareel bi waaye dundal sunnay yonent yàlla ibrahima aleyhi salaam ndax xam nga ni dafa reyoon gàtt jote ko doomam Ismaayil ndax bi mu ñëwee ci doomam yi ne ko yow sama doom man dey dama gis ci gént ne dama lay rey te xam nga géntu yonent dëgg lay tekki doom ji ne ko yow bàyyi defal lu la soob di fekk ma bokk ci way muñ yi ibrahima aleyhi salaam jël ismail nal ko rendi bi mu ko naree rendi génn ak moom ba ca àll ba takk bët ba jël paaka nar koo rendi borom bi daal di koy wottalee rendi googa kuy muy wattallahu jabina kon borom bi subhaanahu wa taala ne ibrahim bi mu demee ba tëral ismail nar ko rendi borom bi ne wa fadaynaahu bi dibhin azim kon kat ismail ñu ko jotee kuy mu mag a mag loolu moo tax ñu taamu ci ni sunna mooy ku mën a rey am kuy mu rey am kuy insha allah rabbi alhamdulilah saas foofu leeral boobu neex na ma loolu waaye dafa am si kuy bi ngay wax noonu. dama si bëgg yaatal tuuti rek nga yaatal ñu ko. kuy bu ngand rey ko mbaa nga génnee xaalis bu bari dem jënd tabaski xarum tabaski mu yem mbaa mu rëy ban moo gën a baax foog nga de. alhamdulilahi rabbil alamin xam nga loolu dafay dellu rek ci poosu doomu aadama bi allahu li gën moom ci wàllu tabaski mhm. euh, ku am kuy bu ngand baax na alhamdulilah waaye mu bañ a nekk nag kuyum puukare mhm. maanaam nit ki ban koo jënd ngir bàkkoo ko mhm. jënd ko ñu koy takk ci buntu kër yi soxna yi di wane ni kuy mu ngand lañu am loolu na ko nit ki moytu alaakulli li am solo mooy na ut rek xar moo xam ni mat na tabaski su ko amee baax na ndax kat xam nga ni tabaski benn fan la su paasee jeex na li ma nee benn fan la mooy gàtt bi ngay rendi boo ko rendee suba danga nga génne waat dépense kon nag boo amee kuy mu mat baax na bu bu mag waaye boo amee bu yemit te mat moom it baax na incha allah bi foofu yi tamit oustaz dañ fay taxaw tuuti léegi ndax nit mën naa wax ne sam day rendi te moom mu am xaalis mu bañ a rendi képp koo xam ni mat na mu kallaf moo xam góor la walla jigéen la yàlla jox na ko lu mu rendee maanaam def na ci poosam lu mu mën a rendee kooka su boobaa jaaduwul mu ne sama papa rendi na dana ma ca boole ndax tabaski kat dañu ko def lu tax ñu wax ko taqarruban ilallah dañ koo def ngir jege ko yàlla kon lii nga am ci sa yow tamit jël ci nga rend sa gàtt jege ko yàlla subhaanahu wa taala ahsana allahu ilayka ya cheikhana al fadil ala hada tawdih dañuy konte si laaj ñetteel bi may laaj sama cheikh bi maa hukmu qassu shaari wal adafiri bi nisbati lil muddahi ki nga xam ne dafa fas yéene ne day rendi lan la sharia wax si waajooju su ko gisee muy lelli weeyam mbaa muy wat kawaram alhamdulilahi rabbil alamin benn fanu tabaski saa bu duggee képp ku amoon yéene rendi gàtt nga am yéene tabaski kooku dañu lay wax ni sa kawar ak say we dootoo ci laal dara kon da koy laal avant benn fanu tabaski ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ci xadiisi imam muslim ne ida daxalat al ashru wa araada ahadukum an yaddaxi falaa yamassa min sha'rihi wa bashrihi shay'a nee na bu fekkee ni fukki fan yi dugg si na mooy fukki fan yi tabaski yi kenn ci yéen walla ngeen nizar ni da ngeen tabaski kon ku xës ba ne da nga tabaski dootoo laal sa kawar dootoo laal sa we loolu alimaam muslim génn na ko incha allah macha allah foofu tamit leer na ŋaañ léegi liñ bëgg mooy nga wax ñu maa huwa sinnu al waajibu fi l udhiya euh, a sinnul waajib mooy euh, defe naa at waaw yi nga xamante ni mhm. xar war na koo am mat tabaski mhm. Euh, at yi nga xam ni bëy war na koo am mat tabaski mhm. at yi nga xamante ni nag war na koo am mat tabaski mhm. bu dee xar mhm. li ñuy wax ci xar na jege at tàmbalee juróom benni weer xar bu amee juróom benni weer rekk mat na tabaski jëm kaw su mooyee juróom benni weer matut tabaski su dee ci bëy la si nga xamante ni dañuy wax ni bëy la nit ki mën a tëbaskee te bul fàtte ni mhm. loolu dinañ ci ñëw tuuti ñu bëri ci nit ñi mhm. dañoo am complexe ren di béy wallaahi al-aziim euh, fii ci dakaar ak li ko nuru nit ñi duñuy ñuy rendi béy ndax dañoo jàpp ne béy da ko fa ñàkk solo mhm. te ñu ko bañ yépp nag ñooy ñooy fees dibiteri yi dibiteri yi da ngay fekk ne ay béy la rey waaye nit ñi dañ koy lekk waaye tey boo jëloon béy indi ko sa kër soxna si day bañ xale yi bañ ñépp bañ waaye boo demoon ca seeraas wala feneen nga jënd fa yàpp bay indi xàmmewuñ ci dara kon dañ koo bëgg a gaafal tuutil ko soofantal ko waaye ala kulli bu fekkee ni bëy la na mat at bay dugg atum ñaareel su matee at bay dugg atum ñaareel lu mu ca dugg rek baax na xam nga ni xar dañ la ni li tàmbalee juróom benn weer jëm at waaye bëy moom at bi day mat jëm ci at ak benn at ak ñaar loolu nag mën na nekk ay fan. Mhm. mën na nekk weer. mën na nekk leneen insha allah bi foofu leer na waaye eh, su fekkee ne ndax dagan na parce que gis nañ ne nag moom rëy na. Mm. nag ndax dagan na nit ñi bokk ko mu doon seen tabaski. juróom ñaari borom kër. Mm. mën nañoo bokk benn yàq. benn yëkk mm. maanaam ay borom kër yu bokk. Mm-hmm. moo xam famille la. ay nit ñu bokk ndey ak baay nekk ay famille ku nekk yore kër ñoom ñu ne dañoo décider ñu jënd aw yëkk bu ko defee tëbaskee ko su boobaa loolu dagan na ñu mën koo tëbaskee insha allah baarakallahu laka yaa cheikhana al fadil ala hada tawdih léegi su ma juróomeeli laajte mooy maa hiya al uyub allati laa tajuuzu fi l udhiya am na ay ayib yoo xam ne su nekkee si xar mbaa béy mbaa nag daf daf ko da eh, eh, du ko daganal pour nit ki rëy ko léegi uyubi yooyu laa bëgg nga leeral ñu ko maanaam xar bi nga xamante ni mhm. am na ayib buy teye muy mat tabaski walla béy walla yen waaw euh, xar moom mhm. walla béy mhm. walla aw yëkk ñoom ñépp dafa am yu ñuy bañ ci ñoom yi ñuy bañ ci ñoom mooy béjjén boo xamante ni dafa damm te wérut jamil te wérut mooy deret baa nga ca góom baa nga ca su góom bi nekkee ci béjjén bi deret bi di sottiku su boobaa boobee du daa di mat walla boo xam ni nopp bi dafa xëtt ca cosaan la la déparé mais bu fekkee dafa dem ci biir noppi ba ca cat li mu am lu dagg loolu amul problème mais xëtt boo xamante mi ngi tàmbalee ca saxukaayu nopp ba su boobaa loolu dañuy wax ni du mat mm-hmm. ak it xar moo xam ne daa feebar ba ku ko gis xàmme ko mm-hmm. boobu tamit matu tëbaski mm-hmm. ak it xar moo xamante ni boo ko gisee gis yax ya maanaam muy xar moo xamante ni dafa jeex tàkk-tàkk loolu matul tabaski ak boo xamante ne dafa lafañ ci soox soox bu ñu mën a xàmmee wala bu pat yii bu mu ci nekk rek kon dootuñ ko mën a tabaskee incha allah rabbi leneen li ma la bëgg a laaj si mbirum tabaski bi mooy nit kaa ngi nii bitim réew la nekk te moom fu mu nekk mën naa am mu am gàllankoor boo xam ne du ko mën a rëy ndax mën naa sant nit ki nekk Sénégal mbaa beneen dëkk Afrique pour mu reyal ko foofu waaw loolu mooy tawkiil. waaw tawkiil. yow yaa ngi nekk Europe wala nekk ci dëkk boo xam ne dañuy bañ ku rendi comme ni mu amee ci yenn dëkk européen waaw mën nga yónnee sa tabaski senegal mm-hmm. bu ko defee boo ko yónnee ñu rendil la ko. Mm-hmm. boo ko yónnee nag li gën mooy nga yónnee ko ku ko soxla. Mm-hmm. koo xamante ni amatul mu rendi. nga yónnee ko ko mu rendi ko mu nekk benn xeer bu jam ñaari picc. alhamdulilah ndax tëbaskiloo nga nit ba pare am nga tëbaski. maanaam yónnee nga cent cinquante mille benn waaye joo xamante ni dafa néew doole euh, am na njaboot kooku bu jëlee xar moomu rendi ko xam nga ne moom dana bëgg dana kontaan njabootam bëgg te du tee yow ma nekk France wala Canada yónnee ko ko yow da ngay am tabaski ndax yow yaa ko jënd insha allah rabbi ahsanallahu ilayka ala tawdih fi ma bëgg rek mooy léegi xar moomu mu ngi nii rendi nga ko léegi nu ñuy wasaaree yàpp jooju noonu waaw yàpp boobu day euh, li ci jiitu mooy dañu ko rendi mu nekk nag jaamu yàlla ndax lan yanaala allaha luhumuha wala dimaa'uha walakin yanaaluhu taqwa minkum borom bi nee na rend bi ngeen rendi soxlawul yàpp bi soxlawul deret ji ragal yàlla gi tax nga rendi ko loola la ci soxla loolu nag boo ko xësee ba rendi sa waa kër am nañ ci wàll waaye miskin yiy wër am nañ ci wàll mm-hmm. sa dëkkandoo yi am nañ ci wàll say dëkkandoo nag mën nga caa jël tuuti nga jox ña nga xamante ni amuñu lu ñu rendi mm-hmm. su boobaa nga jox ko nag ci joxin boo xamante ni doo ko siiwal ak joxin boo xamante ni doo toroxal borom mm-hmm. ñaareel bi miskin bi ñëw di laaj mën nañ ko caa jox ñetteel bi ki nga jël mu di la feesal mën nga ko caa jox incha allah li ci des nga mën koo jëriñoo yow ak sa njaboot. xam naa ne nit ñu bari ñu lay topp te bëgg nañ rendi léegi xar mi rendi ko maa sawaabuhaa lan moo ci nekk si tiyaabo li ci nekk ci tiyaaba waxoon nañ ko sànq mm-hmm. mooy jege bi ngay jege yàlla mm-hmm. ñaareel bi xar moomu nga rendi am nañu yaakaar ne yowmal qiyaam dana bokk ci liy dekki boot la mm-hmm. yóbbu la àjjana incha allah yàlla nañ ko yàlla defal loolu lañ cee wut su ma laajte bu mujj bi mooy maa nasihatukum tijaaha al muslimina fi yowmi arafa bésu arafa wax bëri na ci lool yow ban soññaate ngay soññ jullit yi man li may jiiteel nit ñi mooy allah yi mooy man dama tiit. Mm-hmm. Euh, ren xam nga ni bu ñu deful ndànk tabaski dina nekk ñaar. lan moo tax dina nekk ñaar. Mm-hmm. mooy xam nga ni mm-hmm. arabi Saoudite muy Màkka ñoom bu soobee yàlla ñu ngi taxawu Arafat talaata te Arafat mooy bésub ak daanaka te xam nga ni arafaat moom la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di wax ne alxajju arafa jullit ñépp taxaw dajaloo sol yu weex toroxlu di ñaan yàlla yàlla jéggal leen borom bi di leen puukarewoo bay woo malaaka yi naan leen ñee ñan la malaaka yi ne ko say jaam lañ borom bi ne leen lan moo leen indi bërëb bee ñu ne ko xanaa ñëw di la toroxlul yàlla ni wax leen leen ñu jóg jéggal naa leen ñoom ñépp seeni bàkkaar benn yoon lay am ci at mm-hmm. at mu nekk benn yoon la cay am ci benn bërëb lay am at mu nekk benn yoon la arafaat di am benn bërëb lay am benn place lay am muy màkka màkka boobu muy am mooy arafaat du tuxu du jóge màkka suba ñu yóbbu ko yaman du jóge yaman ginnaaw suba ñu yóbbu ko Sénégal kon benn bés la bésub lëmm boobu nga xamante ne mooy arafaat saa bu amee ci suba sa mooy tabaski ndax ki yàlla yónni noonu la ko defee woon waaye da ngay fekk ñun suñu réew fii ci senegaal Sénégal da ngay fekk ñu ne arafaat tey la ñu toog woor ko ñenn ñi gëm ni tey la arafaat ndax information dara réeratul ñu ne nañu noppalu suba ginnaaw suba ñu julli su boobaa njuumte gu mag a mag la ndax arafaat bis bu ñu xamee ni tey la bis ba ca topp moom mooy tëbaski bu fekkee nag ki amul nga xamante ni masalan ñu ne tey talaata mooy arafaat waaye fekk yow amoo woon tëbaski yàlla dogal nga am ci àllarba ji alxamis de nga jóg jël sa gàtt rendi am nga tëbaski lan moo tax ndax dafa amoon ngànt bu la téye fii ba ñetti fan waaye daal li may dénk sam bopp te di ko leerlu mm-hmm. mooy Sénégal nañu del siwaat ñu ragal yàlla mm-hmm. ndax lii ñu dal nii baaxut lu ñaaw la ci wàllu diine dañ ciy wuute wuute woo xamante ni da ngay da da ngay yéemu ci yàlla et pourtant këru diine yi seen xew-xew yi doo ci gis wuute mukk lu tax ñu jox ko himma seeni intérêt moo ci nekk lan leen tey jox moo ca nekk kon itte yooyu ñu am ci yooyu bu ñu ko jëloon indiwaat ko bàyyi ko xel mooy commission yi nekk Sénégal ak jullit ñi nañu yeewu te ñu xam ni incha allah tëbaski àllarba la àdduna bi yépp tëbaski àllarba la ñu jàpp ne mooy tëbaski ndax arafaat te damay denkaane di wax ni saa bu arafaat amee werante mënatul amati bu ñu xamee ne tey la arafaat bu dee alxamis la xam nañ ñi àjjuma la bu dee àjjuma xam nañu samedi la bu dee samedi la xam nañu dimanche la kon wuute ci tabaski moom sénégalais da leen a neex dong waaye nag teguñ ko fenn incha allah kon maa ngi leen di dénk ñu dellusiwaat delloo si xel yi ragal yàlla jaamu yàlla yal yàlla defal ñu jàmm defal ko ñëpp incha allah rabbi kon mbokk yi hada huwa al maaluufu fi cheikhina annahu kullama wadaata lahu sualan min asilaati al yujibuka yani wal ijaba takunu mustaqa min yanabii nubuwa lianna alcheikh daiman ma alkitabi wassunna nasalu llaha bimannihi wa karamihi wa juudihi wa waxtiyaarihi an yuwaffiqahu wa an yusaddida xutaahu lii mooy li nga xam ne moom lañ leen àndil tey jëlee ko daarul birri wal irsaad tv si eh, ngeen tontu bataaxal yi nga xam ne moom la cheikh bi def si mbirum tabaski kon duñ def dara lu dul yëkkati toogaay bi incha allah ba beneen jëmm jamono was assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatullahi.